بقي الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من يكون جين في سنو تيربو بدوي أربعون بإمام نووي نو يكسي تيتي حديث فان ويربع جرم يت دي حديث بسيو سنو صلى الله عليه وسلم نه suñu borom day moo wax ne te mooy waxi borom bi ñaar la muy waxi alquran ak li ñuy tudde xadisul qudsi xadisul qudsi mooy lu nekkul ci alquran te ñu ne yàllaa ko wax bokk na lu yàlla wax ab yenentam man aada li waliyan faqad azantahu bil harb képp koo xam ne danga nga sama waliyu kooku day déclaré naa ko guerre te mbokk loolu moy képp ko xamne da nga gis ab jaamu yàlla nga xeb ko wala ton ko ngir jaamu ga muy jaamu yàlla wala lenn lu addu ci walu addunaam lolé ci musiba gëna metti la bok ndax borom bi neena man may féetewoo xex ak yow inna allah yudafiu 'anil alladina amanu yàlla moy défendre bi ñi gëm loolu it muy wane ni yow it bul ragal lenn bul tiit dara képp koo xam ne da lay menacé te yow nga gëm ne yow jàmm bu yàlla nga bu bu doyloo yàlla xamal ne du yow la amul problème yàlla la amul problème léegi nag wali yu yooyu suñu borom wax mu ne ab jaam jegewuma lu ma gën a bëgg li ma farataal ci moom te loolu it jullit moom ngay xam li yàlla gën a bëgg li mu koy defal muy julli koor aj zakat aj màkk loolu mooy li yàlla gën a bëgg li mu ci ñun ñu gën koo war a gën góor góorgóorlu mu ne nag gannaaw farata yi sama jaam du deñ di ma jege ci naafila ca mbokk naafila munta valable te farata jeexul yéen ñëpp yéen a gën a xam heure supplémentaire koy wax mooy ki liggéey heure normale am mooy am heure supplémentaire ne damay heure supplémentaire ko nangu naafila yàlla du nangu benn naafila ca farata ba matul su ko defee mu ne nag jaam bi du deñ di ma jege ci naafila ba ma bëgg ko mi ngi noonu denc naa bu mu bëgg ko moo tax yonente bi alei salaam saxaloon na ñaar fukki rakk ak ñett yu mu daan naafile gannaaw fukki rakk ak juróom-ñaar yi nga xam ne mooy farata mu ne su ma ko bëggee nag mandarga ba mooy lan mu ne may doon ay bëtam yu muy xoole dootul nangoo nekk di seetaan lu dul neex yàlla lépp lu mu gis neexul yàlla mu naqari ko ci xolam lu mu gis mu neex yàlla da koy daal di neex ci xolam ndax day nekk barab bi nee na ni ma ni yàlla di xoole noonu lay xoole ay nafa min naka noonu kaddu gum dégg muy kaddu bokkaale shirk bidaa da koy naqari ci xolam heure bu déggee kàddu de mu neex ko ci xolam ndax loolu neex yàlla loxom yi it dootul nangoo jël benn alal bu yàlla daganul dootul nangoo lor kenn ci loxoom te it la ko yàlla wërsëgal da koy dépensé day doon ko jëriñ nit ñi mu ne it ay tànkam na ko noonu du jéggi mukk ay tànkam jëm fu neexul yàlla fépp fu mu yéeg nag ne ngërëmal yàlla ma nga fa ak lu mu sori sori su ko mënee dina jéggi tànk yi ñëw dem fa mbokk lii mooy mandarga ne yàlla subhanahu bëgg na ko ci jamam yi bëgg àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain